ñëpp ñu fi teew ku si nekk sa tour ak sa sant ñi nga xam ñoy ñooy ñëw ci poste de santé dañ leen liggéey population yi dañ leen wara jappalé jappalé moy mooy lan Pape def na fi lu melni nii Pape yàlla nga yalla def lu ëpp lii vous êtes un jeune très motivé vous êtes un jeune qui accompagne le président de la République dans sa politique de développement et loolu lañ bëggee nit ñi diggé man luma diggé dina ko def yooyu loo diggee di nga ko def kon am nga droit docteur ne Mbappé la ak Sadio Mané équipe bu ñu nekk na en tout cas, je vous remercie vivement au nom de l'ensemble des conseillers de la commune de Khelkombiram, au nom de l'ensemble des chefs de village ici présents ou bien représentés, au nom de toutes les femmes de la commune de Khelkombiram et toute la jeunesse de Khelkombiram. Nous sommes derrière vous pour vous accompagner, pour que la politique de développement sanitaire de M. le Président de la République puisse être une réalité dans la commune de Khelkombiram. Je voudrais avant tout au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal et de son gouvernement, au nom de Monsieur le Gouverneur de la région de Kaolak ainsi qu'à celui de Madame le Préfet du département de Guinguinéo, vous remercier pour les efforts que vous avez déployés afin non seulement d'ériger cette maternité moderne pour le village de Ngakhokh, mais aussi et surtout pour avoir, euh, pour avoir doté à ces communes qui constituent le département de, de de trois échographes pour permettre aux populations de se soulager en ce qui concerne les questions sanitaires. Ces actions que vous avez menées avec tact et abnégation permettront de soulager sur le plan sanitaire les habitants de Guinguinéo qui, du fait de l'absence de matériel médical dans les structures sanitaires du département, effectuer un périple pour aller se faire consulter dans le département de Kaolack le plus souvent. La cérémonie d'aujourd'hui, à travers son objet et ses activités, témoigne de combien vous attachez une importance capitale au bien-être de vos habitants. li sabab li su ñuy am doom mu métti lool ñu koy amee ci anam yu xam ne anam yu xaw a jéggi dayoo ñu ne nag suñu ambition ñun ci département bi mooy femmes yi nga xam ne dañuy am doom dëkk Dakar di nekk ci ay clinique ñii dëkk Kaolack di dem hôpital Kaolack ñooñu ak suñu femmes yi ñun dañoo jàpp sax ne suñu femmes yi ñoo leen ëpp pas-pas ñoo leen gën a jàmbaare et que donc ñun amuñu droit ëllëg suñu waree am doom

ñu jox ñu plan bi ñu liggéey médecin chef comme que point E nag ay dëkk yu mag lañ ñun tamit ñu calibré ko ba mu toll ak suñu dëkk ñu plan bu bees bi nga xam ne moom la def fii suñu maternité su loolu weesoo nag ñu ne tous les matériels de dernière génération matériels yi soo leen duggee tey da ko gis matériels yi lal exemple bu ma demee benn jour mbaraxul ma gis benn femme bu am doom su waree tuur ndox ñu jang-jangee ko guddi fu muy amee doom ba ci fu ñuy def toilette yi ma ne lii kat yennuwul maanaa parce que man fekk naa sama jabar muy am doom waaye ci biir maternité bi foofu la ñu def foofu la ñu def toilette yi mu nekk ay salle fii soo fi duggee tey ay salle yooyu bain yooyu méngoog jamono ñu ngi fii donc ku fi am doom lépp loo bugg def fii nga koy defee loolu nekk lu am solo loo xam ne dañ ko def mu nekk benn projet projet bi nag bu soobee yàlla suñu mbëbët mooy ñu yembal ko ba nga xam ne département bi yëpp dina ci jot daaw commencé nañ ko mbadaxun bi moom mooy deuxième génération bi incha allah ren jii ci suñu budget bi waxtaan nañ ko démb ci suñu débat d'orientation budgétaire dinañ fa defaat yeneen ñaar yu mel nii dugal ko ci département bi vous bu soobee le médecin chef va ci parler pour voir ban ak ban lañ koy ambition ans ou 6 ans ci kanam am maternité La maternité bu Mengo la maternité bu Melni Bi. Si ans ou 6 ans man dama élection ñun ay homme élection future

def échographie dañuy Nous fi dem ba def ay kilomètres kilomètres kilomètres wala sax ñu dem ba Kaolack jël ay def ay kilomètres kilomètres kilomètres kilomètres lu nekk nous, lañ daj ci yoon bi ñun ñu dañuy am projet qui xamné dañ koy maternité partout maternité nous, maternité merci maternité everywhere comme lu ma nous, comme ñaan Bamba nous, donc maternité fep nous, moy suñu projet ñu ne maternité bi échographie bi lañ koy may dëkk bu nekk loolu mooy suñu ambition pour première phase bi ci 2019 ñu ne nag dañuy jël trois communes yan communes la ñu jël ñu ne dañuy jël communes yi gën a sori ci département bi yan communes la Mbos jigéen ñi vingt cinq kilomètres la ñuy def ci Rarang pour ñëw pour def échographie ca biir Guinguinéo ñu ne dañuy jël échographie yóbbu ko ba seen dëkk ba nga xam ne benn kilomètre sax dootoo ko defati pour mën a def sa échographie échographie baa ngi ni tey ñu ngi koy réceptionné ak ban dëkk ngàcc parce que sori na lool ñoom suñu bëggee échographie dañuy dem ba Kaolack man rus naa ñu ne hôpital Kaolack bisimilah fan nga dëkk nga ne Guinguinéo laa dëkk looy def ñu ne échographie dama bëgg nu waa Kaolack amee échographie ñun aussi ñu am échographie suñu dëkk ba nga xam ne kenn dootul jógeeti fii di dem ci département jàmbur di wut échographie parce que lii sont des projets minimaux loolu moy suñu ambition benen bi aussi mo nek Fass mi nga xamné ne moy deug yi nga xamné ñom ñoo gëna sori ci 2019 bi def nañ ci ñet ci 2020 bi aussi fi ak 5 mois wala 6 mois dinañu programmer suñu budget ren bi yeneen ñetti échographie yo xamné ne dinañ waxtanaat aussi ak médecin chef mu wax ñu fuñ koy duggal